mooy am na at moo xam damaa nekk ca France man ak sëñ Maam Balla ñu ne daal Daaru Muxti ni mu toll ci yoonu murit war nañoo mën a fexe ba am daara joo xam ne gone gu war a jàng gone da nga mën a commencé jàng di jàng ca dëkk bi maag sëñ Maam Balla ñoo njëkk a xalaat xalaat boobu bañ jógee France bi ñëwee wax ko waa dëkk bépp waa dëkk bépp ànd ci ñu taxawaloon benn jamiya bokkoon na ci sart yooyu dañoon ajuma bu ne nañ daje ca mawlud ba jàng benn kaamil alxuraan def ko addee addee borom daaru ñëpp bàyyi nañ ba mu des bàyyi woon nañ kaamil boobu di ko jàng ba moom ajjuma bu jot dana dem nañ ko wax dañ ko sose woon di ko jànge noonu ajjuma bu jot euh, képp koo xam ne man bis ni tey ji laa mujj a euh, topp ci gannaawam ñu jullee ko faatu ku ñuy wax saatkan taalib Sëriñ Abdou Khoudoss Sëriñ Abdou Rahmane daana am léeg-léeg ñeenti yoon juróom yoon ci armée di par bis te loolu néew na nga gis kilifa ko koy def képp ku ko mas batale bopp ni ko na ko taxaw bu fi jógee Sëriñ Abdou Rahmane taxaw na képp koo kuñ ko yëgal taw waxu ko woon bu bis dana bàyyi ay soxlaam dem ca dem ca armée dem ci jullee ba dem ca armée mu nekkoon koo xam daal ak baaxam lu ci waay wax bàyyi ci dara bokk na ci ak baaxam ak liggéeyam am na ñoo xam ne Sëñ Abdou Rahmane jàngal na bañ am xam-xam te mosuñu ko gis ndax lim lim lim lim lim euh, lim euh, téerey xasaay di ak téerey xam-xam yi nga xam du ko firi def ko wolof nit mën naa nekk ca France wala Allemagne doo xam kuy Sëñ Abdou Rahmane jàng ci ay waxam ba am xam-xam te doo gis suñu Abdourahmane loolu nag jàpp naa ne bi yàlla mënu koo gën a féete kaw waxatuma laag nag ndimbal li nga xam ne ameloon na ko doomu aadama yi nga xam ne amul xejj amul seen fu na la waaye daa bàyyi di ñëw di sàkku si ndimbal ci moom te du jépp kenn du bodd kenn te ku ñëw dana la dimbal ngir yàlla man de damaa gëm ni ñi nga xam ne sëñ Tuubaa di leen tiitaroo moom ci la bokk waaw nag bokk ci moom ci aw sant yomb na lool ndax loolu moom kenn du ko defal kenn yàllaa ko yàllaa ci boole nit du njàmbaar kenn ku ne fa ngay bokk ak famille boo mën a bokk sa njàmbaar boolewula ci yàlla la soob mu ni Mouhamed Lam yi famille sàngam laa koy boole keneen ak keneen famille sàngam laa leen di boole waaye suñu Abdourahmane famille bii mu mbokk muy daaru mu ci di sëtu maam Thierno Birahim di doomu si Abdou Khoudous ku bëgg lu baax ku ne boo sañoon maanaam mu bokk sa kon ñun daaru mu ci gi nga xam ne fi la bokk mën naa ni tiitaru waa mu Muxti beneen bi ci des itam maanaam Sëñ Tuubaa la mu bëggoon bëggoon ak njabootam na ci man jàpp naa ne bu dellusiwaatoon di tànn ay xaritam dana ci boole Sëñ Abdourahmane jamono ñi nag nekk kilifa moom yomb waaye doon kilifa moom yombut waaw ñaare bari na koo xam ne bu xasee yor sant wi rek kilifa la waaye nag lay tax kilifa ga mën a sax da ngay nekk ci la Sëñ Tuubaa bëggoon maam Thierno bëgg ko wala wala kër ga nga bokk la mag ña woon nga ne ca te Sëñ Abdu ci loolu la ne woon kenn ku ne xam na ne bu Sëñ Tuubaa dellu siwaatoon du soppi jotaay loolu moom ñëpp ko mën a seere jamono yi ci gannaaw am na ku may waxtaan ma ne ko doo dégg kenn ku ku sëkk Sëñ Abdu Rahmaan ndax li nit ñi bëgg daw wuti ko moom da ko da ko wuti wut te pourtant mi ngi koy fekk si li ko daa dikkal kenn xamul nu mu toll waaye lu ko dikkal lu ne delloowaat na ko ci julli daawul denc te ku dugg ci këram gii xam ne bu ko alal yitewum këram dana deme neen te ñi daan laaj amul heure amul bëccëg ci jàkka ji nañ koy xaar bu bu jullee ba pare jot gi muy am kuy sàkku ndimbal mu dimbali la kuy sàkku ñaan mu ñaanal la daawul tëju kenn waxtu julli lum lum bu doon taw ak nu mu mën a mel dana ñëw julli si jàkka ji man daal Mohamed li ma mën a wax mooy suñu Abdourahmane waa daal Mousty ñàkk nañ ko waaye waa Sénégal ñàkk nañ te boo seetee ñeent semaines yi war nañ cee jàngaate lu bari bari ñeenti borom xam-xam yu mag jóge nañ fi maam Alioune Badara Ndao moo fi njëkk a jóge Moustapha Gueye jóge fi Sëñ Abdourahmane ak Xaradawi ñoo bokk daanaka benn benn bis bu ñu fi jógee soréewuñ te kenn ku ci ne am na xam-xam bu yàlla joxoon boo xam ne jëriñ nga ci ay nit ba tàyyi kon nag ku am am njàngat fi mu nii war ngaa njàngat ni àdduna si mu toll daa toll ci jeex ñu ngi ci cappaandaw la nit ñi nag bàyyiwuñ xel lool kenn ku ci ne. doo xalaat dee sa bopp kenn ku jàkkaarloo ku ne jàpp nga ni moolo la fiy jëkk a waaye kenn du ko xalaat sa bopp ndax suñu Abdou Rahmane talaata rek am na ñoo xam ne julee naa ñoom géef yi ci jàkka ji te ca ca sa mu noppalu kon li ñuy mën a wax yal na ko yàlla yërëm ñu ngi koy siyaare nag njaboot gépp di ko siyaare sëñ Muntaxa di ko siyaare sëñ Basiru Antañang di ko siyaare sëñ Mudu Abdou Khodos nga xam ne mooy xalifa sëñ Abdou Khodos di ko siyaare sëñ Basiru Abdou Khodos di ko siyaare sëñ Abib di ko siyaare suñ jili mi nga xam ne moom la bokka lépp di ko siyaare suñ laat mi nga xam ne moo du taaw ak njabootu suñ Abdou Khoudous yëpp waaye nag Daaru Muxti moom kenn ku ne mën nga ko jaal sa bopp moom daal ñi nga xam ni seen jëf du fay ba ilaa yow mi din moom ca la bokk moom xeex boobu xeex na ba gañe na combat boobu na nag ñoo xam ni xeex xeex war na leen waaye defuñu dara waaw waaye suñu Abdourahmane mii de képp ku xool ci aw doxalinam ak ay jikkoon ak aw melokaanam te bokk suñ tubaa war ngaa xam ndax mel nga ni mel wala jaar nga yoon wi mu jaar wala lim doon def yaa ngi koy def ndax alal ji nga xam ne suñ tubaa da koo jox sëriñ si taalib yi di ñu ko andil liggéey ci lislaam ak delloo wartu ci ñoom dong lay jëriñ amul beneen jëriñ ab sëriñ moom dee su ko nawee kër yu rafet dee su nawe nawee jabar yu rafet dee su ko oto yu rafet dee su ko nawee leneen si Abdourahmane nag comprendre na mission moom mission ba mu jaaroon nag yàlla nañu ko wàll ñun bañ jaar ci waaye am na ñoo xam ne bu ñu xoolee ci